fanweeri fan ci wéru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jotna résultat examen virologique yi may wajal lim ci juroom ñet fuk ak testi ñaari test yi ñu def ñaar fuk ñoo ci positif Manam. juroomi cas importé moo ñu jóge bitim fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu jóg yore doomu jàngoro bi benn cas communautaire benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër na ci bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye am na ñaari malade yu sonn yu nekk sawataas ci bésu tey Daleko ci ka bi ñu ñëk am sénégal woñina temer ak juroom benn fuk ak ñaari ka ñaar fuk ak juroom ñet wër nañ si mu dess téeméer ak fanweer ak ñent si hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di wo askan wi ñu samanté ndiglé yi nga xamné mom lañu joxé ma jox kàddu gi docteur Abdoulaye Bousso. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll mën a jot moo leen ngir mën a xam nga xam ne